ñu ñëw pour lan ñëw Taïba Niassène Taïba Niassène xam ngeen mooy fan am na tamit lu fi xew wala boog lu fi waaj a xew mooy gàmm gi nga xam ne moom la ñuy defal baay fii ci dëkk bi nga xam ne fii la juddoo di ko fàttaliku. ñu ñëw fii nag pour xool si organisation bi xool commission yi xool ni muy doxee doon xool réunion yi ak liñ fi jot a def ak état bi réunion yi ñu def ak moom lim ñu dikk service yi liñ ñu dig ne danañ ko def ñu xool liñ ci defagum ak liñ ci defagum lan la loolu nag xaj na am na ci loo xam ne ci rapport lañ koy def après pour tasaare ko mais daal lu ci mënti xew ñu ngi ñaan état bi ne ko daal xam naa fi mu ne moom xaw ma heure bii moom ku koy waxi tamit da ngay wax rek mais yoonu bii jëy si jëm si Taïba Niassène gi nga xam ne mooy dëkki baay bi dëgg dëgg xaj na chauffeur si ñoo góorlu prudent ak ñaan yi ak dal mais normalement état. Euh, euh, yoon bi ni mu mel ci xat ak ak ak yooyu bu chauffeur si teyut mën naa indi problème loolu ñi ngi ñaan ñu bàyyi bu gàmm gi paasee nañ ci xalaat même buñ koy yokkee ci deneen sax ñu yokku ko daal en tout cas ba mu yaatu ba nga xam ne nit mën nañ see jaar service yi nga xam ne tamit li ñu waxoon Azurut nag man dëgg dëgg mënu ma leen a ñàkk tudd parce que bugguma bugguma woon a tudd kenn mais mosuñu leen a ñàkk tudd parce que dëgg dëgg at mu jot dañ wax ne danañ def nangam danañ def nangam mais bu gàmmu gi jeexee bu gàmmu gi sësee dañuy gis ne vraiment euh, liñ ñi wax euh, duñ ko gis loolu man du ma sànnikati xeer buggumaa def loolu mais nag damaa teewee gàmmu gi teewee waat euh, gàmmu tey ba teewee waat ko moo tax daal dëgg-dëgg nañ ñu dimbale liñ ñuy wax ñu wax ñu lu ñu mën a def te di ko def li ñu liñ mënta def ñu ne ñu munuñ ko def xam nga li xew mooy ñun dañoo nekk ci état ci réew moo xam dafa am état te bàyyi dafa respecté woon état ba nga xam ne mun naa leen cee jox benn anecdote bàyyi buggu na dem Cameroun may nañ ko jox nañ ko visa ak jox nañ ko lépp mais biñ ko soufflé ne ko président bi sawarut sa ñëw fa dafa fomm ñu ne ko lu tax mu ne man du ma dem ci réew moo xam ne président bi sawarut ci sama dem fa parce que conséquences yi du ñëw ci sama kaw mais mën naa ñëw ci kaw samay taalib comme ci république lañ nekk ci république lañ nekk il faut ñu wax ak état bi wax ko ne ko ñu ngi organiser mu ñëw appuyer ñu parce que noonu la la la la la la affaire bi war a demee mais yalwaanuñ tey tamit am nañ taalibe yoo xam ne mën nañ ko kon nag tamit nañ xam ne loolu rek la maanaam dañoo respecté réew mi rek respecté ni nga xam ne mooy doxalin réew mi parce que loolu la ñu jàngal waaye manqué wuñ ku ñu mën a defaral manqué wuñ ku ñu mën a euh, kiyal kon nag ñoom i tamit nañ ñu bàyyi xel